sagara ngay xeeñ ci diggante njiitu conseil économique social et environnemental ak ñenn ñu bokk ci boobu li daluwaay ñoom woy fipp yooyee ñëpp ñu ngi bokk ci parti présidentiel bi muy alliance pour la république ñoom nag danoo bañ a dem uyu ji convocation bu njiitu conseil boobee nga xam ne dafa mujj a dàkkandi lee liggéey doxalinu boobule daluwaay neexatul mu fekk si sànni xeer yi nga xam ne responsable ak militant APR ñu ngi koy teg ci ndoddu sa Seck ndax ne taxawaayam moom mii di njiitu parti réew mi ba noppi doon candidat ci présidentielle bu 2024 bi rafetlu wuñu ko ñi bokk ci bureau bu conseil économique social et environnemental di fësal li APR di xalaat ci suuf naam ay responsable APR bëgg na nañu parti réew mi ak njiitam ñu jóge ci majorité présidentielle bi débat boobu ci diggante Idrissa Seck ak APR dafay fësal ne institution wu république bi ñoom ñëpp dañuy déggal chefu parti bi yore présidence bi ak coalition woom ndax parti politique yi nga xam ne ñoom ñoo yor bopp réew mi ñoo teg tànk institution wu réew mi teg tànkit administration publique bi ak fonctionnement wu état de droit bi njiitum réew mi njiitum assemblée nationale ak responsable yi yore wàllu yoon ñoom ñëpp dañoo ñàkk warma bi nga xam ne war nañ leen ko jox ndax seen dayoo ak seen liggéey loolee lépp nag liggéeyu politiciens yi la ñoom ñi nga xam ne ñoo ñàkkal fayda institution wu république bi moo tax nag war na doon lu ñuy assumer ndax am na ay njeexital yu metti moo xam wàllu yoon wala wàllu administration publique wala sax way takk der yi politique bi ñoo leen di influencer di leen wan ana yoon ban lañu war a jaar moo tax état bi lu ëpp juróom benn fukki at a ngi nii dafay nekk rek ci ki nga xam ne moo yor nguur gi ak parteem moo tax këru kujj gi amuñu benn yoon respe wala considération moo tax nag day doon sax ab délit nga doon adversaire pouvoir bi loolu di fësal ne crise suñu institution yi suñu valeur yi waaye tamit autorité morale wala politique yi bàyyikul fenn fu dul ci politique bi worma bi ñu war a wormaal yooyu la institution seeni góor ak seeni jigéen yi koy doxal dafa war a nekk culture citoyenne ci ñiy yëngu ci langue politique bi ndax nag intérêt wu Sénégal ak ay doomam moo war a jiitu ay intérêt wu ñi ko yore wala ñi ñu àndal